صلاة النسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العكس والسفر mbokk yi yéen ñi bàyyi xel Dakaractu ba léegi ñuy waajal màggalu Touba bayitu bis bi numéro 4 du ci ànd ak Serigne Fallou Galassila lan mooy bayit bi tey katabtu fu katabtu bind naa muy signé naa damaa bind signé te li ma signé na ngeen ko topp ba addunay tukki. ana lu ci Serigne Touba na ma wax. fil baxri ci biir géej gi nag laa ko bindee ne an nii man Ahmadou Bamba laa amadu yat yi du ma tàllal sama loxo bii mukk ilan nazara habidil ma tiini benn nasaraan di ko jëmee ci nasaraan yi nga xam ne jaamu banuk suuf rek la ñu doon du am jën yitte joo xam ne danaa ko tàllal ñooñu. sama loxo saa yu ma ko tàllalee yadi li muxnin karimin sama zamadin laa li daraima tati min sulaytini yàlla rek rabbul arsi wal jabarut lay tàllal loxom Sëriñ Tuubaa li mu waxal boppam te yàlla may ko ko mu bind ko te ba mu koy bind jot nit ñi tegaguñ ci seen bët moo gën a wóor gën a assuré li nit ñiy wax moo tax ma ne leen Sëriñ Tuubaa waxal li mu wax rek soo bëggee nit ñëpp gëmandoo ko kon engagement bi bokk na ci li ko ko may mooy wakkilu gum wakkilu ci yàlla jox boppam gum jox eh, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam loxoom ba du jaawale yàlla ak yonent bi ak keneen du jaawale aji bind ji ak kon bind du jaawale aji bind ji ak kon waaye du jaawale ki tax ñu bind ñi ak ñun bind mosu koo jaawale mosu jaawale yàlla ak kenn mosu jaawale yonent bi ak kenn engagement boobu la jël di ci liggéeyal yàlla di ci liggéeyal yàlla ba yàlla ci boppam tëbb ko kàttan nag dooleel ko doole joo xamante ne bii mosu koo dooleel kenn kon yaakaar naa ne bu fekkee ne dañuy siwaat ci béytu bis bi loolu mu waxal boppam nañ koy toppi maa bind wax ne sama loxo bi du ma ko tàllal mukk ab nasaraan boo xam ne jaamu xërëm rek lay doon muy jaamu ban suuf yaakaar naa ne ba Sëriñ Tuubaa tàmbalee ca Mbàkke Baari ba ni mu ñëwee Ndar tañ tooñ ko fa tam mënoon a def intervention ñu bàyyi ko ni mu ñëwee ndakaaru ba ni ñu ko yóbboo Gabon ba ni mu dellu suwaatee moom Serigne Touba amul fenn fu mu bind ñu gis te ne Serigne Touba moo damaane nangam ci tubaab bi déedéet. tubaab bi ko doon yóbbu sax Serigne bi da leen a bàyyee boppam ak yàlla ba suñ borom dogal tubaab yi ci seen bopp ñoo sàkkuwaat Serigne Touba ñu siwaat ñoo sàkkuwaat mu dem ñoo sàkkuwaat mu del si mu ngi leen loolu ndigalul borom bi laa ciy laaj kon musa tàllal loxoom benn tubaab ku yàlla musulaa tàllal loxoom ba yàlla jox ko cër bi mu ko jox ñoo ngi leen di santaat di leen gërëm di leen ñaanal màggalug jàmm mu nekkoon kon numéro 4 bayitu bis bi ba la gam salaatul si fi kulli shay'in wa fi safar hamani ala mani ma al-absa safar